bu directeuru centre bi daal di porter plainte contre X lañ daal di teg loxo juróom ci agent yuy liggéey ci centre Talibou daabo tey nag ñu doon jannoo juge bi. ci plainte moom xam na li tax mu plainte nee li tax mu plainte ay faits yu am 14 juin la témoins yi sax nee nañ ñoom nekkuñu fi woon sax le 14 juin kenn ki le juin la fi nekkoon ne nan la mënee ñëw di seede loo xam ne le 14 juin la am. donc ça me paraît ay agent yu mer ba futu ñoo daal di song hôpital bi yàq fa ay bagages yu bëree bari suñ sukkandikoo ci directeur bi agent yi nga xamante ne ni dañoo toog lu tolloog ñeenti weer kenn fayu reen seen salaire buñ sukkandikoo ci seen avocat directeuru centre bi amul benn preuve ci lu muy wax bëgg-bëggam mooy fexe rek ba noppiloo ay syndicaliste ñii teewuñu fii ndax ay acte de vandalisme yu am wala yu amul dañoo teew fii parce que dañoo ne ñoom ci seen bopp ñoo def acte de vandalisme amul kenn koo xam ne indi na liy firndeel ne ak de vandalisme yu am na yoo xam ne ñoom ñoo ko def directeur bi si moom nekku fi woon ñaari témoins yëpp kenn si ñoom nekku fi yoon bi ñu leen entendre au commissariat nee na ñoom gisuñu dégguñu fekkewuñu dañoo ñëw fekk ay mbalit yu tuuru ay bunt yu damm ay serrure yu damm centre Talibou Dabo kay ñëpp xam nañ ne <laughs> yàgg naa jagat yi nag te ñun defuñu defluwuñu fekkewuñ fa ñuy defee ñoom ñu ne nag def am na nañu indi kan moo def ak ñan ñoo def ak ay preuve leer nañ ñu leen di toppee acte de vandalisme ak menace procureur bi moom dafa jàpp ni dañ leen war a tëj benn at ak juróom benn weer yi nga xamante ni nii dañ ko war a tëdd. teguwul fenn parce que yaa ngi laaj 10 millions nee nga dañoo yàq sa der yow yaa plainte yow mi plainte kay yaa yàq der bu fekkee ne dafa gis ne dañoo yàq deram na dem plainte mooy loolu mooy diffamation na dem plainte pour diffamation mais plainte am bi diffamation bokku ci. lu tolloog 118 agents yuy liggéeye ci centre Talibou daabo juróom lañ ci daal di identifier jàpp ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw yooyu la yàqu-yàqu fu mu nekk nii nag daal di nañ dàkkandi mbir yi ba le 10 juillet ngir rek euh, ñu daal di génne délibéré bi.